vite fait ñu ràññee ko ci crème boo xam ni kat maanaam boo ko defee sa yaram yooyu duñu la laal ràññee ko ci cuuraay boo xam ni day dàq yooyu ràññee ko it ci ñaari insecticide yoo xam ni fu ñu gis ay gunóor ak mbóot rey ko ràññee ko ci puudaru mbóot boo xam ni suy mu ne ngalañ waaye it ñu daal di am pâte dentifrice am kon laa gamme vite fait moo leen di may ju baax prochaine fois bébé y un homme. <laughs> mais bébé li est pour mais est-ce que bëgg tu sais que y a où tu es la lumière de mon existence. Hmm, neex na. bi ma la xamee ba léegi sama àdduna dafa neex. Hmm. man bokkuma ci góor yi nga xamante ne dañuy dem de gauche à droite non non je te vois parce que tu es propre tu es nickel te macha allah li ma bëgg mën nga ma ko jox. que hmm. tu la waaye dara. au fait bébé man je me suis jamais donné à un homme mais yow dama laa gis rek bëgg la quoi je sais pas pourquoi. si tu le dis c'est un problème. Hmm. Les kon ça woo mon bàjjan là. ah mais jàppal ni man hmm. je me suis jamais donné à une fille. c'est vrai ça. musuma séeréer dara benn jigéen. Hmm. du ma la gis rek ñeme la parce que tu es propre tu es nickel Tu es allah da nga am cas. te <laughs> sûrement da je dois aller. merci léegi pour te récompenser. ci tabaski bi je vais t'offrir une voiture. non, <laughs> bébé, tu t'amuses. Mais l'autre est là. Une voiture Tu sais que kër ma maa ko hmm. moom dama ko jox benn pour boo xamante ni xam nga dooleem dafa néew. Hmm. juste mu di fi nekk. c'est hmm. ça hein? mais dis-moi est-ce que tu as une fois voyagé. Euh, non non non pas encore. Mon nag su may ànd da ngay am classe. da ngay chic da ngay classique dama que passeport. Hmm. un tampon visa. C'est ce que je bébé est-ce que tu que c'est vrai je te jure non mais c'est vrai. viens là viens là viens là euh. <laughs> merci. ah oui moi, bah, s'il te plaît. la prochaine fois. na ngeen baax Seydou. mbaa ça tey ça va bien merci. alhamdulilah salaamaaleykum. hi how are <laughs> gën naa jox sa nee ko bàyyam déglu angale. c'est vrai <laughs> yàgg naa gam bi waaye dégguma angale. waaw c'est normal <laughs> parce que doomu ambassadeur bu États-Unis la. dafa ñëwoon tey jii seet ma xam nga rek. elle s'appelle Jennifer. Jennifer elle s'appelle Baye Jennifer. Hi, bye. Uh, hi. How are you? How are you? Fine. Nice. Okay. You you you you you, you come on dëkk bu ambo ya nak. Wallahi mais ya ya la mm-hmm. How are you fine? Yeah yeah yeah yeah. Ki nga si xet gi. Américain yi. Ha illa la. Bu ñuy wax manokken rek ñi ñoy manokken. Ñi ci dess ñep dañuy tirise. Américain day ñor ba ca kaw. Gis nga ki baay ba amul lu mu def Huawei. Huawei dëkk bu ñu Huawei. Bayam. Madagascar mo jur koku oh, kana. Ah. Madagascar. américain bo ñu na Madagascar. dafar bato loolu moom moo mo defar dynamo yi. Madagascar eh, eh, si si c'est un pays. c'est que Hey, you fine? Yeah, yeah, yeah. Très bien. You you you you you dagin bien. Okay. you thank bien. you, thank you. Xam nga dangal ñe ko mom. Thank you. Sénégal momul dangal. Sénégal sër la mom ko rob mu jot. C'est ça. Dangal ñi ñoko mom wa Washington yi. Hein? daay la xam nga ne sa sa sa maam Bill Clinton George Bush ñoom ah Macron ñooñu toj ni réew mi. baax ñoo ngi fi lim yëpp président France la ah. ki say américaine. Ah. li ngay wax sa comprendre si dara. eh yu jégale. a pas de souci. yu yu jégale. Kambaayam mi <laughs> mi Amérique. là, là-bas. ok Caporal. ok d'accord c'est bon c'est bon. ay noonu jéggi nañ. ok ok ok donc à tout à l'heure à tout à l'heure. ok xale bi de xanaa xanaa xanaa xanaa ba tubaab yi defar tour de fel ci moom lañ jëlee plan bi plan tour de fel ba damaa defe ni kii ci kii lañ jëlee plan tour de fel ba wóor. ñun suñu jigéen ñi dañuy triser am américain yi lay def njool ca kaw taxaw ah élégance poitrine bombée coupe waaye bu doon ñun fii la ñu nekk di sëgg di sëgg dañoo ko moomut waaye man tamit waa ji tamit man man man man nag saa Dubaay ma bëgg a jaaxal tey mu présenté ma ambassadeur France bu subaa américain Guinée-Bissau Burkina Faso andi na fi Cap-Verdien kii war naa koo gëstu de ndax jamono neexul nag ay doomu ambassade rek ay doomu président rek hmm? ba pare location trente cinq mille lay fay man loolu ma njëkk jaaxal di fay trente cinq mille ci néeg di ànd ak ambassadeurs yi président yi

pour kan la. pour man. sëriñu lan. damay seet rek damay seet. yow yaa ko soxla. waaw xanaa commerçant nga wala wala wala wala promoteur lamb nga. man élève laa. élève. élève laa ak seetlu ah dugal ma ngi ci biir. Ah. dama te bañ a jàng seeni leçon bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam papa danga na na nga def maa ngi fi yaa Sabah ci jàmm ça va an si an si an si bañu man ñu man de dañ maa boole woon ak yow ah. dama amoon ñaari soxla benn bi mooy dama bëgg am bac d'office beneen bi mooy dama nopp sama professeur te moom xooluma ma bëggoon nak nga jàppale ma si ah <laughs> sa aajo faju na <laughs> loolu rek laa ma sa aajo faju na waaye nag yeexal <coughs> bi dina xaw a du metti de hmm. waaw loolu moom yomb na ma lool waaye weexal moom. loolu ñaata la. am nga deux cent mille. deux cent mille. oui papa loolu moom dafa cher. ah yow moom yow moom daal wàññil. <laughs> yow dama laa sopp sax. waaw ah. def cinquante mille def fukki junni rek. Hmm. waaw bu soobee yàlla rek ma defaral la loolu amul benn problème dañu boole. maa ngi dama laa gisee nga neex <laughs> gisoon naa yow man dama laa sopp moom. ci rek laa yegg. bu dee bundu bundu bundu dindi. andi papa andi comme doo fay luyaas. loo enquête sama jël bu koor sama 4 mois mois di ma. eh maa ngi xaar bis yow léegi jógal nga dem jógal nga dem jógal jógal nga dem ba ba balaa soobee yàlla su guddi na nga ñëw ba 22h am na ay càngat yu ñu war a defa waaw incha allah na nga ñëw sa moom ni fi doon jaar. waaw fi laa sangat leen ñoom ku ne sàmm ñoom man leen jaay ñoom ñëpp fi leen jaar am ba. élève day jàng nga la ana élève dem ci sëriñ naan ta ba a da leen jàngi yow yow yow yaay nit ku xale ay élève ay élève élève yi nga di leen fat ci biir ndey bi da nga leen yàq xale yi kii examen lay def bàyyi nga yàq esprit xale yi na nga yi nga xam ñoom ngay dóor loolu laa bëgg naan sa ka tey na loolu takk. yaay dër boo naree seen dër boo naree seen dër li ma la wax rek. waaye doxal fële. yow yow yàq nga xale yëpp. daa aw kii élève la. yow naa la alak yow. koy alak yow naa la alak yow. oui non. yaa ci biir eh. ci biir ci biir ah ci biir ci biir laa doxal fële daa xam dara. mu raay. Eh? xaaral saaru gars yi ndaw yi dañuy tërëmpee rek booy yi dañuy dañuy. xool élève bi def na moromam la. nan day naan benn maara laay seet ña xam sa dara di def nii élèves yi toog leen seen kër jàng seeni i leçon dimbali seeni i waajur seen bàyyi son nañ seen yaay sonn ci njëngu fermeture waaye élève boo ci gis ma ngay farantu mbaa ma ngay sëriñtu mbaa place je t'aime moo tax du ngeen réussir élève day am concentration psychologiquement ak balbatiquement mais duñ ko def juste go simple fii juste si observation daa ànd ak géographie à la place vous am géographie kay superficie la superficie du Sénégal vite fait ñu ràññee ko ci crème boo xam ni kat maanaam boo ko defee sa yaram yooyu duñ la laal ràññee ko ci cuuraay boo xam ni day dàq yooyu ràññee ko it ci ñaari insecticide yoo xam ni fu ñu gis ay gunóor ak mbóot rey ko ràññee ko it ci puudaru mbóot boo xam ni suy mu ne ngalañ waaye it ñu daal di am pâte dentifrice ambos kon laa gamme vite fait moo leen di may waa ju baax